alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dellu ci seen 2243 di jégglu xam nga boo nekkee kajoor wàllu connexion bi day waar rawatina fan yi eh, lañ ma yi dañoo dagg internet bi ñaare boo nekkul fa am wifi rek wala nga am yenn eh, yenn logiciel yi doo mën a jëf li nga bëgg jëf muy lu metti mooy loo xam ne noo ngi ñaan yàlla daf mu bañ a mu mu mu mu bañ a yàgg mu daal di jeex fii may waxe sax jombul xaj na jeex na waaye ala kulli xaalil ñun moom war noo xool suñu bopp bu baax fi jamono toll saa yoo xëyee bu bët seteet mu gën di metti ci wet yu baree bare bari te nit ni yow moom moo la ko teg loolu dañ ci war a yeewu di ci jànge ba lu ñuy defati lu ne nu koy tëral ci yoon wa nga xam ne ci la war a jaar mu mel ni noo ngi waajal màggal bi su ko su rajab mu mel ni weer win tolloot ay ngëneelam waxaan nañ ca la ci ëpp solo mooy di ca woor di leen jéggulu tamit fan yi taskir jàllul amul mu metti nu lool eh, ñu toll foo xam ne réew mi yëngu yi yéen a ngi koy dégg fan yi ah, jaxasoo bari lool lu mu am nag bu amee ñaare la koy waral xañ na ñëpp du ko xam mooy bu ñu jàppee jàppoon nii lañ doon def rek bu saa yu jotatee muy tànn njiit lu jiite ñëpp dañu koy def buñ ko femmee ba ay yëngu am dëgg dinañ mer lool waaye daal na nit ñi gën a sàmm seen bopp baax rek nañ gën a sàmm seen bopp bu baax rek ndax ñu bari juróom-ñeenti weer fukki weer nangam nga tëdd ko ci foo munta génn sa bopp te la la ko yóbbe mooy doon bañ ñu def la loo xam ne lii euh, sa àq yu ñëra jël la loolu fekk la ci nañ fexe ba loolu nuñ ko man di moytoo ñu koy moytoo noonu alakul xaali du nu politique sen de du nu politique comme ni ñuy politiquer waaye addu bu jotee ci leeral nit ki position yi mu war a jël ci ci ci ci réew mi ñu fàttali ko nit ki ñu fàttali ko nit ki du ñu bañ nit waaye dinañ bañ euh, jëf yu nit di jëf dogal yu muy jël engagement yu muy jël te ñi ëpp ci population bi bu boobaa ñëpp ñëpp ñëpp xam ni lii du yoon loolu ab jullit euh, bu fekkee ma ngay wax di wax ba loolu agsi mu noppi ca ah loola am na nuñ ko tuddee hmm. asaakitu anil aq jàng ngeen ko seytaanul axras ku noppi ci loo xam ni dëgg la alayhi salaam nee na kooku de moom seytaane bu muuma la rek ah jëm ju muuma moom du ko teree mën a eh, du ko teree mën a jëf moo tax moom ah, wa fokk rek ki xam ne moom munta jël benn décret munta digle ñoom ñu def waaye ab jàngalekat la nay jàngale ab xutbakat la ci minbar bi nay xutba li nga xëy moom day yee nit ñi ci seen dund gii waaye lépp mu teg ko ci njàngalem lislaam doon koo xam ni wax ja farfarloo du ci feeñ jëmm jaag xol ba nag moom mën naa am fu mu féete te teg ko ci yoon ak njub waaye nag la muy wax moom bu ca ak farfarloo feeñ waaye na doon dëgg nag doonte nit mën na koo dégg eh, defe ni diw dafa contre ñoom diw ndax toujours ñoom diw lay wax fekk ñoom diw lañu lañu dafa jaaduwul mu di ko wax ñu def moo jaaduwul mu di ko wax rek waaye nañ gën a téye eh, xalaat daal bu baax a baax ba ñii tëdd ci kaso yi loolee ñu bañ koo gën di dolli nit léeg-léeg dangay ngay muñ loo xam ni sa àq la waaye ñàkk pexe mooy tax nga muñ ko bàyyi ko mu jàll bàyyi ko mu jàll waaw ndax la la ca mën a fekk moo tax waaw alakuli alin kon euh, jamono moo toll foo xam ne nun ñëpp kenn ku ci nekk gis nga ni àdduna yëngoo léegi li ñu am nii euh, xol bu ne boo demee tey jii bu dee bilit euh, am na lu ko naqari ca Israël mbokk yi Palestine xoolal boo ca xoolee sa mbir yëpp day wees ci yow sa maami maamaat ñoo ko sanc ñoo fi nekkoon ay centaine centaine ci ay siècle ñoo ko moom bu bu yëglu quarante huit quarante cinq am ñu ñu fa xajal ñooñu tey ñu occupé occupé ko puus leen ba lañ leen joxoon muy vingt pour cent yi yéen amatu leen lu toll ni vingt pour cent ya ñoom quatre-vingts sax léegi xeeb nañ ko ren jii li ñu daj ah xam naa jotumaa xool fan yi ma nekkee daaru gay waaye comme xañ na fi nekk ni am nanu am nanu am nanu connexion dinañ dugg xool ci suñu yenn groupe yi ci internet bi actuellement mbir yi fan la toll nii waaye li garaaw rek garaaw rek lay toll garaaw rek kon ñooñu boo leen xoolee rek li ngay dund ci Sénégal di ko dund ci Mali di ko dund ci euh, manen réew ci réew africain yi nga xam ni yëpp yëpp wax dëgg yàlla am na ñuy jafe-jafe euh, ak seen population ak seen njiit ak étranger yi te bu ñu étranger yi rek moom mooy daanaka euh, français yi ak ñi mel ni ñoom su ko defee boo xoolee ci ñële day woyof lool lool kër yu tas rek doom ak bàyyi ñu faat leen kenn rëcc ca walla kenn bileesa ca des fa ñu si ñëpp ñu faat leen metti trop waxatuñu alal waaye ku ci mën a daw raw ba sa bakkan raw rek yaa ngi doon rawale sa bopp ñu fa faat la tooñ la faat la moo tax sunu boroom moom ay mbiram mi ngi nii de ngi nii de moo tax lu nekk mën naa am ci mbir yow lu ne lu ne nangam yàlla du ko seetaan ah yow yàlla yàlla kay lu gën a métti loolu am na fi am na fi ci dogal sunu boroom waaw loo ngi ci mujjug jamono mbir yi daanaka du dellu ginnaaw ci jikko yu bon yi dellu ginnaaw ci dëngate goo xëy da nga koy gis xam ne lii ak jeng la ak dëngte la lii manipulation la lii ak jaay doole la waaw mi ngi noonu dooley nag euh, euh, dooley njiit nag euh, waru caa fayu waru caa tooñ ndax lan en tant que yow njiit doole ji la yàlla jox bul ci fayu bul ci tooñ defe naa bu ma juumul mos naa dégg Cheikh Muntaqa Bachir al Khalifa wax ko ni euh, lii nga xam ne moom mooy dayob suñ tubaa daal moom lu ci tooñ te lu ci fayu ak amul dégg ak amul dégg sax mu soxa waaw waaye léeg-léeg nga gis loo xam ni ña koy wax dara di ko wax ay di ko wax ay maasam wallahi am na ci loo ña ngi leen di tooñ ñu ngi leen di tooñ ndax Euh, nun suñuy politicien suñ Cheikh Fall suñ Cheikh Fall ma Mbàkke maa ngi koy nuyu bu baax sama wëllëre suñ soppee wax na lu am solo def génn bu am solo ci sama diya wax ni Cheikh Cheikh Muntaxa day euh, nit la koo xam ni ba mu waxee ni nañ ko may na ko politicien yi may daal képp kuy politique daa war a téye boppam rek waaye nag ndax li ñuy bañ mooy euh, politiciens yi ñëw gis kook génn leneen lu xewet ñu jàpp ni moom moo ko yëgoog ñoom wax wax bu am solo la wax foofu wax dëgg yàlla waaw manipulation yi yooyu yëpp dañoo war a fexe ba di ko aaral kilifa diine yi parce que kilifa diine gi dafa am loo xam mënul lu ko bopp entourage am bi ko wër yor caabi këram di dugal nit ñi ak génne am na loo xay seen responsabilité la yow nag booy wax nag dangay dal ca kaw kilifa ga rek di ko danget li nga koy danget di ko dangeet li nga koy danget waaye yow mal xaay mi ngi ñëw de mbokk yi mi ngi ñëw de nga waxal sa moroom loo xam ni defu ko xamu ko yëgu ko voilà lam ci def soo ko xamante sax di ko jukkal wala def na waru garam moom fii la mën a yem ah mi ngi noonu doom suñu Abbas Sall def na ci sëñ Abdoulaye Sall moom it bu ma juumul yii def na benn euh, discours bu am solo Umu Kalsoom si caatu da baax moom it def na discours bu am solo dellu si waat nit ñi comme la bàyyam doon def yi ñi nga xam ni yoon nu ñu jaar du noonu wax ak njiitu réew mi fàttali kilifa diine yi jigéen la waaye wax na lu am solo ala kulli haal ba kii kon Sénégal daal mi noonu eh, na kenn ku ci nekk daal gën a eh, dalal sa bopp bu baax ndax am na loxo buñ ko toppee liñ doon bañ day mujj am ci suñu réew mii muy guerre civile maa la ko wax de jàkkaarloo bii nii bu ko population bi toppee guerre civile dina fi am wala leneen am fi te loolu wal iyaasu billahi nañ ci yàlla musal ñu yàlla musal ci guerre civile wal iyaasu billah ndax réew ci biir réew mi ci lay xewe bu boobaa te waa réew mi kese lay doon ñii jàkkaarloog ñii ñii ñii ñii jombul ñenn ca bopp sax di ay njiit yi sax ñoom dem nañ bu boobaa Amérique wala France population bi des fi léegi di rayante wala iyaas la mbokk yi daw leen loolu daw leen loolu kan kan ca kawit di def lu tax loolu am na ko daw ragal yàlla waaw dëgg réew mi am nañu baax mag ñi ñaan nañ fi jàmm rek a fi am yàgg na noo dégg loolu waaye loolu daa ay sart yu koy tënk buñ buñ génn ci nag noo ngi ci bay na bay xamatuñ ci lu nekk dafa mel ni ñu bëgg génn sart yi tënkootuñ ci tënkootuñ ci te mbokk yi waaw mbir yi moom ah eh, ñàkk naa jaarul ci jaxasoo bi ni mu amee te lu ci bari la koy waral moom mooy liñ tëral ni mooy sunu yoon doonte bokkal li yàlla wax sax lu ca bari duñ ko jëfandikoo luñ ci bëgg changer changer ko rek lu daanaka moom kon doy na waar rek mu mel ni buñ ñëwaatee ci li ñuy mujjee eh, xam nga li Cheikh Mamadou Fadal moom it la ñuy def ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar eh, mu daa ko eh, jógee ci Touba dem Daaru Salaam ndax fala la gane àdduna ba mu fa gane àddunaat dañoo gis bi mu nekkee xalifa muy jóge ci Tuuba di dem di fanaan foofa gis mu màggal ko lool ba doomam jëkk ko wutu sëñ Muudu bu sa jëng wax na man mii ma dégg ngeen dégg ko sababu lu tax moom mu jëleen nag guddi googu rek defal ko màggal gu rëy daa woote état di ñëw lépp lu am ci ak màggal ak gàmmu mu di ko def lool ñu wéyal ko ba mu yaatoo ni mu yaatoo tey jii mu bokk ci bis yi gën a yaatu ci ginnaaw bu màggal Tuubaa jàllee ci Tuubaa màggu Daaru Xudoos Kazu Rajab yeneen màggal yi ci biir tuba soog a ñëw loolu nag e, dajeeg bis bi nga xam ne ci la alayhi salaam ci jëmmi boppam ja ànda nag Jibril ak daamar ju tudd alburaax mu jóge ci màkka dem baytul maqdis jiite fa yonente yi julli alayhi salaatu wasalaam jóge fa yéeg dem sidratul muntaha jóge fa dem nag ba sës ba jige ak boroomam ni xala di jige ak xocc gi nga xam ni moom lañ koy tiire saa boroom moom wax ak moom la ko soob waaye yóbbal bu rëy bu am solo mooy juróom fukki julli yum ko jox jullit yi koy taxawe bis bu ne juróomi yoon ndax juróom fukk yi kat boo defee juróom yi bu matee nga am yool juróom fukk allahu akbar kon weer yi bu ñëwee buñ ci fàttali ko suñ fàllu sëñ Fallou daa ci joxe ay njàngale yu ci guddi gi yonente bi nee na man ci laa wàcc gis nga yonente bi dañuy lay ma ni cëpp lay xam nañ ko mooy ku ci baag rek mel ni rek lañ ko mel ni rek dafa tëb jëm kaw kooku mooy lay cëpp nag mooy ba muy wàcc ni cëpp gis nga kon ci ay waxam daana ci jàngale noo xay nit ki bu ko defee dina am juróomu fukki raaka ci bis juróomu bu ne yi muy dawal yi muy toftal moom sëñ Fallou ku doon expliqué julli lu baree baree bare faqih la woon faqih bokk na ci nuxaat yi tamit maanaam ku mel noonu nag bu laa fàttaliku guddi gi te guddi gi la sax mu koy fàttaliku mooy turandoom ba moo ci indi sëriñ boobu mbokk yi nan ko gën a jàpp te bu ko defee buñ ci bu ci suba nag ñu woor ko wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihaali bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani